asalaamaaleykum ni leen ko waxee won lépp li intérêt Mbacke waaye nak sunu kàddoo ngi bàyyeekoo ci Mbacke euh, ba tey mu di lenn ci li nga xamante ne nii moo di ouvrier yi nekk ci biir Mbacke kii di la maire wala bok ñenn ñi nekk ci biir mairie bu Mbacke jox leen aw kayit ne leen fii ak fukki fan ci kàttanu sunu borom da ngeen fi jógee ci place yi waaye daal liñ ci mën am ba mën koo am ci sunu micro waxtaan ci ak moom mu di sama nijaay ñu gis ne Pape Ndour yow yore kàddu ñenn ci ouvrier yi nekk fii ci biir Mbacke euh, mu di lenn loo xamante depuis ngeen ko jot ak léegi mën naa ne nelawutu leen ba ak lenn seen liggéey lan nga ci jox. Euh, fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla def nañ ñu problème ndax fi mu ne nii boobaag léegi ñun war a mat 30 ans fi mu def naa ko fi mu ne fi la ñuy liggéey ñun ñii ñëpp fi mu ne wax dëgg yàlla bu ñu xëy xëy ni la tey jii nga jóge fi maanaam te yow néewuñ la fii waxuñ la leneen loolu wax dëgg yàlla moom métti na fi mu ne nii wax dëgg dëgg dëgg loolu moom métti na moom. kan moo la jox kayit bi ne la nga. kayit bi de waa ko indi de man préfet waaw préfet la man kay waa ji xawma ko kon préfet la woon waaw ñoom daal ñoo ko fi fi mu waaw léegi bu ñëwee daal pour fukki fan yooyu lañ ñu wax fu mu fan lañ leen jox pour ngeen jóge fi. ah fukki fan kay la gars yi wax nee nañ loolu de pour ngeen jóge fi waaw maanaam mu ne fii pour tëli dafiy jaar loolu de loo ni tëli dafiy jaar da ngeen fiy jóge waaw man de bi ma waxee sax nee naa commandé place bi sax maanaam dama fi luy rek waaye man li ma fi def ëpp na 30 ans fi mu ne nii waaw ndax man lu fay nekk booba xale yi di samay doom booba sax presque juddoogul booba nag ni fa laa fi nekk wax dëgg yàlla kooku nag bu ñu xëyee xëy pour ni la génne la te néewuñ la jàppal fee wala dugal fee loolu moom vraiment métti na moom wax dëgg yàlla te yaakaaru fen fi ngay xëy di fii ci Seneset euh, Seneset nag fi la lépp di leeree grand bu yaa ñu gis ne tey yaa ngi fii nekk ci ouvrier yi di say nawle di yëngu ci wàllum ouvrier lan ngay mooy seen taxawaay dëgg-dëgg ak lan moo la naqari ak kër yu ñu jox tey fi ngeen war fee jógee. jaajëf Souleymane Souleymane daal xam lan moo Moussa la maire dafa yabal ay ditam daan ne jox ñu benn këyit convocation daan ne feeg 10 jours damaa bëgg ngeen jóge fi yéen ñëpp ma ne ko nag 10 jours dafa gàtt parce que bëggoon ñu mënoon may ba élection yi jàll wala 2 mois sax pour ñu programmer ñu mën am fu jëm. ñun yoruñ casque. ñun ay magasin la yor def nañ fi ay 24 ans 25 ans kon mënuñu xëy xëy tey ñu ñëw rek nee na 10 ngeen fi am ngeen jóge fi ah, loolu nag te nit pare nit ki boo ko jëlee fii ne ko dama nit ki boo ko jëlee fii jugal fii na wax ne ko kaay toog fii mais duñ xëy xëy ne jug leen fii te ñun amuñ fenn fuñ jëm yore ati jàmbur ak i moteur yi jàmbur ak i manga yi fi jàmbur te amul fenn fuñ ko dugal moo tax nag ma ne ñun danañ àndandoo di xàccandoo di dóorandoo bu fekkee nag mag i Sall mi ngi ñuy dégg kii moom da yokkal ay noonu monsieur le maire bi amul dara lu mu fi liggéey liggéeyu fi dara ah, place publique la dara place ñëwee place publique bee ginnaaw raay ginnaaw raay defoon toj ko defu fa dara nit ñaa fay boo yaa fay toog di raxasi oto ak di romb di jàll amuñ defuñ fa dara fii même bu fekkee dañ defar tali war nañoo avertir bu doon 3 mois 4 mois ñu may ñu bañ am place buñ nekk wala sinon mu jox ñu place moom monsieur le maire nangu nañ mais ñun fi lañ métier